sport. Mhm. Euh, parti démocratique sénégalais ñoom ñu ngi waxtaan ak président Ablaye euh, Macky Sall loolu ñëpp xam nañ d'ailleurs vous avez parlé de deal. oui ñoom ñëpp loolu xam nañu ko. assemblée nationale euh, amut benn lu opposition di def ba ñu bokk ci. direction parti bi la sax laay wax ma militant yi parce que militant yi xamuñ sax yenn saa yi lay xew direction ba la laa wax waaw buñ nee ñu ngi ubbi dañu bëgg rassemblement bu yaatu société civile. parti politique opposition contre le troisième mandat nga ne non du ci bokk parce que Mimi Touré ngi ci waaw ah, quand nag sénégalais yi nag quand même nag <laughs> waruñu foyee seen xel quand même. absolument voilà waruñu foyee seen xel ñoom parti démocratique sénégalais am nañu droit ànd ak président Macky Sall bu leen neexee. am nañ ci droit mais nañ ko assumer taxaw ci télé bi wax ko waaye bëgg a jël ab Mimi Touré def ko raison xam nga loolu c'est pas sérieux voilà ba noppi ñu bàyyi sot soto bi diggante. président ànd ak Karim ab parti politique ci ab soxna te mënaluñ ma dara dax d'ailleurs dara dañ daan gis kay xanaa ay ji ay góor ay jigéen di dajaloo di jéem a sotoo benn góor waaye da gis góor góor góor ñi ñooy sotoo benn jigéen te maa ngi nii <laughs> jàkkaarloog ñoom euh, quand même ah, parti politique bureau politique amu leen dara lu ngeen waxtaane waxtaane wu leen situation réew mi waxu leen ak président Macky Sall ne warta def troisième mandat parce que constitution bi mayu ko ko parce que baatam ba mu joxe woon mayu ko ko ngeen ne du ñu bokk ca rassemblement boobu parce que mii mi turee ca nekk te lu tax du ma bokk ak moom ca loola mooy parce que moo condamné euh, Karim Wade xam ngeen ne condamné wu ma Karim Wade ay tribunal tribunal mooy mooy mooy condamné. Mhm. tribunal ay condamné te ba ñuy condamné Karim Wade euh, Sidiki Kaba sax doon <laughs> moo doon moo doon moo doon ministre de la justice bi. bu ñu amee ku ñu war a mere mooy ka jox instruction ministre de la justice mooy président Macky Sall mii ñu toog di am ak am kon négociation secrète xam nañu waaye comme foog ñu joxe benn argument parce que mu nooy waxtaan ak nit ki ba noppi ëlbatiku naan ko waroo def troisième mandat kon xam nga yëf ya jeex. pour yow kon dañ la def genre bouc émissaire. mais man raison bu taxawul la loolu kenn mënul jël loolu au sérieux kaay ñu wax ci waxu réew mi liy yàq réew mi troisième mandat nga ne non ma ci bokk parce que diw la bokk. ñu ne la waa loo dajale gi nga ne non di woo ma tëjoon te président de la république di jox instruction kooku ñu kaak ngeen xam ko am nañu droit ñoom ànd ak Macky Sall bu leen neexee am nañ ci droit waaye nag bu ñu neexee bu ñu foyee suñu xel te man sax bëgguma du ma personnaliser les parce que franchement euh, defe naa ne réew mi fi mu toll mhm. du suñu personne man wala keneen ñun réew mee ñu war a soxal démocratie sénégalaise moo ñu war a